wasalaatu wasalaamu ala alhaadi albasir sayidina muhammad wa ala alihi wa saxaabatihi wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yowmi ddin amma baad ixwat alislaam fi ljumaati almaadiya taxaddasna an alistixfaar daruriyatiha fi xayaati almuslim walladi yakunu fi ma bayna alabdi wa bayna rabbih subhaanahu alqaadiru alganiyi alladi laa yaajusuhu shayun fi l ardi wala fi lsama wala yuathiru fi mulkihi wa malakutihi shay'un siyaadatan wala nuqsaana kama qaala ash-shaykh ahmadu al-xadim radiyallahu taala anhu wa ardaahu fi munaajaatihi fi matlabi shifa fala tuwaaqithhum bima laa yanqusuk wala hum habi alladi laa yanfauk falyawma natahaddasu an almadalim allati tahdusu wa tajri fi ma baynaka wa bayna ibadin amsalik fallahu subhanahu qad harrama sulma ala nafsihi bi lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya ibadi inni harramtu sulma ala nafsi wa jaaltuhu xaraaman baynakum falaa tazaalamu aw kama qaala salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wal ibaadu amsaaluka fuqaraau muxtaajuuna hum fi amasi lxaajati ila kulli xayrin fi lxayaati alaaxira daari lxalood wa lidaalika fa yajibu ala man taxammala fi jaanibihim tabiatan min altabiat an yaruddaha waqad bayyana al abdul xadim fi mansuumihi al jawharu nafis kayfa turaddu almazaalim wa tabiat fa qaal ثم المسالم أتت خصمين أموالا أهرادا بخير مين فليردد الأموال للأرباب إن وجدوا دهر بلا ارتياب ثم إذا لم توجدوا فليردد لوارثهم بلا تردد ثم إذا لم يوجدوا تصدق عنهم بها كما حكى من حقق هذا في جانب الأموال أما الأعراض فيقول ويستحل كل عرض أكلا